daan sama jumo bi bi ñu tawatee bi ñu tawatee nekk ci affaire ibaadu yi ah, nekk ci ibaadu yi nga ma dégg bi ñu feebaree ñun maag saay bi ñu nekkee xale ndaw feebar ñun ñu nekk ay ibaadu sama papa nekk ibaadu kër ga ñëpp nekk ibaadu ñun suñu kër ñëpp ay ibaadu la ñu woon mais li ñu dugal ci yoonu murit mooy xam nga la mu dugal ci yoonu murit dañoo sama sama papa bi ñu feebaree nekk ay lii nekk xale doo sama yaay fu ne la yóbbu ibaadu suñu bokk ibaadu yi lañ ñoom ñu solo seen ci ñoom gën a yokk suñu feebar nag ñoo ñoo gën a yokk suñu feebar pa nag du ibaadu yëpp ñu yóbbu ba ñu yóbboo ci ñoom mooy ñi bëggul seen tubaab am na waaw bi ñu yóbboo bi ñu yóbboo ci ñu yóbboo ci ñoom ñu ñuy ñaanal sol seen ci kër ma di julli ñaari rakka dañuy ñaanal di ñu ñaanal dañoo ñaanal ba sonn mënuñoo faj feebar bi mais benn taalibe seen tubaab lañ dem mu jox ñu ndox ci boobu la ñuy wéree ba léegi ci la ñu ay ay ay ay ay ay ay jóot feebaree bi ñu feebaree bi ñu nekkee xale waaye Serigne Touba moo ñu faj moo tax ñu doon ay ay ay ay taalibe Serigne Touba. Ah. ñun kenn ñu mosul woon doon ibaadu ñoo leen gënoon doon ibaadu téeméeri ji a jeex leen moom baax ibaadu mooy ab jaamu yàlla nit ki mënoo doon ak jaamu yàlla am na kii li li li si Ahmed kii waxoon rek mu ni sëñ Tuubaa boo ko bañee nga dem ba ca Kaaba ga naan labbayka ki yonent bi sallallahu alayhi laa sallam laa laka labbayka ku bañ sëñ Tuubaa dem di di am. ak Zimo Zimo defal naa di gars yi dama bëgg. Rasta muy Bébé Rasta muy képp ku ma fi déggati muy critiqué sëñ Tuubaa. ñaf sa ndey la ndey ba nga problème ñaf sa ndey Bébé Rasta dama ni. dofu leen dina jàppale. doomu ku ma fi déggati muy digal dinañ déggal ndey xaram lañu doomu xaram ay doomu xaram ngeen yéen Tuubaa seen waay seen Tuubaa ngeen dëgg seen seen seen waay waxuma seen Tuubaa sax waaye waaye waaye waaye waaye taalibe seen Tuubaa bu doy rek moom ñun ba ñu feebaree nekk ibaadu ñun bi ñu feebaree nekk ibaadu dama la ñun yoonu Sëriñ Tuubaa moo ñu faj ñun suñu kër ñëpp ay ibaadu la ñoon sama papa dàkkoon ci kër ma ñëpp waaw sama papa bu mosaan sol yére ba génn cëkkal ma bu rëy lay sol sama papa sama yaay dàqoo dàqat nekk ab ibaadu bu kenn xamul lu muy nduróol ba ñu feebaree ne xale ndaw fu la ñu yóbbu waaye yoonu Serigne Touba dañoo ci taalibe Serigne Touba yóbbu ñu faj ñu. waaye du du xool taalibe Serigne Touba ñu faj. Serigne Touba moo ñu faj barke Serigne Touba. yoonu Serigne Touba gi yoonu Serigne Touba gi yow day gën a jëm kanam day gën a am doole seen xol yi di doxat seen doom yi dañuy juri doon ay murit seen seen doom yi dañuy doon ay murit seen sët yi juri doon ay murit taalibe Serigne yoonu Serigne